servir nañu ànd nañu ak moom liggéey nañu huit ans et demi di liggéey bi pare ndax moom ci boppam moom moo am pouvoir constitutionnel décider kan mooy ànd ak moom ci ànd nañu moom depuis le premier gouvernement 4 avril jusqu'au 1er novembre 2020, on est jàpp naa it on parce que je suis pas dans le gouvernement mais je suis dans le parti li ñu dugaloon ci parti bi mooy ànd ak moom liggéey te mi ngi ci liggéey bi donc nañu ànd ak moom liggéey c'est vrai émotion yi yëpp mën nga ko comprendre waaye néegi ni daal li am solo mooy yàlla def na en plus du gouvernement man dañ maa faroon mairie Linguère kon li ma génnee ci bii ma ne occasion la ma gën a mën a ñëw toog fii liggéey ci sama mairie vraiment jarul coow lu bari la ma nekkoon ci tànki Jolof tey laa ci gën a nekk la ma nekkoon ci tàngu Sénégal tey laa ci gën a nekk sant yàlla nag bi ñuy génn du génn di sëgg mm-hmm. loolu rek li am solo ah, vraiment yi du ay